beaucoup d'internautes suivent suivre un peu partout à travers euh, le Sénégal mais également dans la diaspora euh, nous sommes à Touba ñu ni ngeen ko gisee rek ci édition 2024 du grand euh, Magal, buñ ko tuddee rek ah xel dem ci euh, Serigne Touba Xaadimu Rasul waaye am mbégte ci euh, célébrer li nga xam ne le grand Magal. buñ ko waxee nag mbégte dina ci am waaye ay coono dina ci am lu ci mel ni mbirum ñàkkum ndox bi nga xam ne nañ ko nga Euh, loolee affecté na leen euh, fu ci mel ni Kër Ñàng euh, quartier Maam Jaara alieu quartier Ñaane ak fi nga xam ne moom mooy jannatul Mahwa askan bi nag am na nu ñu ko dundee ñàkkum ndox boobu ñu teewlu leen dellu si fi di ñàkkum ndox bi metti na trop trop foo ko takk rek passé na ko parce que ñun daan nañ toog sax léeg-léeg ñu am tuuti ndox mais instant bii nii parce que lu mat un mois ngi nii li doon am a kës néew sax amatul. gars yi am na benn tuyau bu ñu jëlee ci tuyau bu mag bi ci nekk ci police bi police bi police yu janatu bi indi ko fii ci côté Kër Sëñ bi pour mu mën a évacuer ndox pour ñu mën a am ndox mais nee nañ tuyau bu mag bi moo amul ndox man gis nga dama topp sax camion bi pour mu mën ñu may ndox ñun suñu kër a ngi ne dañu teg ne suñu yàpp ak suñu lépp pour mën a am luñ mën a togg ndox muñ mën a toggee reer reer mais ba léegi nii amaguñ ko. moom ñàkkum ndox mi sonal nañu torop wax dëgg yàlla. na man fi ma doon liggéey fa lañ ma woowee nii ne ma ndox amul kër ga te chaque jour man maa leen daan jox ndox mais man tam problème boobu boo gisee ma am ko mooy ki ñu daan jox ndox moom it moo ñu war ndax lu doy ne ay juróomi fan a ngi nii ñu ngi koy xaar mooy ñëwuñ pour jaay ñu ndox te bu ñu jaay ndox ñun tam duñ mën a am ndox xam nga lii tamit neexut nga indil ay gan war leen a jox ñu sangu war leen a jox ñu naan war leen a jox ñu nekk ci bon exemple mënoo ko. ngay wër ñaan ay ndox xam nga loolu tamit métti na wax dëgg yàlla bu ñu ci yokkee dimbali daal moom dina baax. kooku la ngeen dégg ak ki euh, naatangoom nag ñoom coono yu mettee métti la ñu dund euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, ñàkkum ndox bi ñoom sax si seen wàllu bopp wax nañu ko citerne boobu ngeen di seen sama ginnaaw la ñu seen rek ñu topp ci ngir rek am yaakaar man fi am ndox bu ñu mën a dimbali ko ngir màggal gi nga xam ne ci la ñu jëm. kii ma àndal ne yàlla xam ne léegi lañ ànd sama place ma jox ko ñaari sachet ndox pour mu naan via bi mu yor nii seen borom oto bi moo ko may ndox est-ce que loolu moom rafet na wax dëgg yàlla màggal gi neex na lool lool lool waaye bu ñu dimbalee ci ndox danañ jël ndox daal moom mooy suñ problème wax dëgg yàlla. man dama gis citerne bi rek dama toog ne ci sama buntu kër ma seen citerne bi traversé bi mu traversé dama koo topp man ak sapeur bi ñoo ànd ba fii ma koy ñaan am 5 bidons yu ma toggee reer loolu moo tax sax ma ñëw ba fii. mais gisuma sax ko xamanteni bi nii kuy yor citerne la kuy wër fi ci quartier bi pour may ñu ndox non non gisuma ko de oto citerne sapeur bi rek la fi gisagun ci dafa ci kër sëñ bi pour indi fi ndox lolo taxoon ma top ko pour am ci 5 bidon ndox pour man ci togu reer. wax dëgg yàlla gisaguñu ku ñu walu de ñun ñi de yéen ñii da lañ gis yaakar le waye gisoon gisaguñu ku ñu may ndox de. man day wax gamna at mo xamanteni sax man dama jënd gis buy dem ma jox ko mu jaay ma waaye mayuñ ñu de dañ ñoo jaay. keneen kum kum kum ku ñu indi may lee tamit daa am ku ko jënd ca koñ ba ñëw may ñëpp ñu am mais jëlu kenn jëlu décision pour maye yéen ñi daal laa gis bu ngeen def ko. ni mettee nii moom wax dëgg yàlla gëj na ne méttee trop non mosuñu ko dunde nii parce que ñun penc mi fii am na ñaari robinet yu ne ci penc mi ñaari robinet yooyu da nga daan toog ba guddi sax mu am ndox nga root ci balaa bët a set nga root li nga soxla ci ndox ca du coupé wala cinq heures bi mu daan am ndox nga mën a root dugal sa kër mais loogi loolu sax amatuñ ko amul xaaju gu amul trois heures du matin amul quatre heures daan am ak néew sax amuñu ko instant bi maanaam daal fi mu ne nii moom lu njëkk lu njëkk la sax moo tane woon li ñu nekk nii nii instant bi nii ci ñàkk ndox bi moom. sax daa gën a métti fii moom wax dëgg. nii sama ndijoor yéen a ngi fay seen benn bërëb bërëb bile nag la ñu ñëw ngir approvisionné ko rek li nga xam ne mooy euh, ndox ah vraiment nga xam ne euh, kër yi ko wër yëpp daanaka yu si bëri. amuñu ko ñu ngi koy wër soxla ko lool ci li nga xam ne moom mooy màggal gi Euh, dugg nañ sax ci bërëb bi dalluwaay bi ngir euh, saytu ñoom it ah ci euh, anam yi nga xam ne ci lañ dundee li nga xam ne mooy ñàkkum ndox bi file ci Touba. yow xam nga loo ndox ni mu amee njëriñ ci ci ci doomu aadama rawatina bésu màggal nga xamante ni dangay am effectif da ngay am gan rawatina nag genre kër yi nga xam ni ay kër Serigne Saliou nga xamante ni ku jóg fii lay jëm si. bon donc bu faites dañ ni ndox amu fi bu parce que da ngay euh, depuis veille magal ba légui ñuy préparer magal ba légui am ndox euh, dina dal suñu xel te ci bon mais euh, sans lolou même si Magal deux ans passés jannatu vraiment. yaa am na ay zone c'est pas partout mais am na ay zone yoo xam ne gën nañ xam luy ndox quoi waaw mais nag euh, ñaan sëñ bi ci ndibalu sëñ bi xëy na loolu dina dem ba saafaro ndax daal dafa wër Touba dafa ko wërngal këpp daal. chaque année da ngeen ciy jël ay matuwaay mbirum ñàkk bi chaque année dañ ci jël ay matuwaay chaque presque la sapeur pompier la on est maintenant euh, familier quoi maintenant parce que. Ce c'est pas la première fois quoi dem c'est la première fois quoi il faut chaque année presque 4 ans 7 ans penser, ni rek la fi même sax euh, da ngay gis ndox day am du mais avec effectif bi quantité d'eau bi comprendre Euh, day tax ba nga xamante ni sax yow ñoom dañuy teew. ñëw naa fi doon defar si sama kër def naa fi lu mat une semaine fekk nañ ma fi ñaar yoon directeur bi fekk na ma fi ñaar yoon ak ay nitam bi ñëwee xool nañ ni dañoo bëgg avant màggal kër sëñ bi am ndox. mais depuis boobu daal ba léegi ni dugal nañ fi tiwo def nañ tiwo bu ndaw jële ko ci police bi ñu ni comme dañu bàyyi tiwo bi dem jëli ci tiwo bu mag bi nekk ci police bi mu mën a ñëw yi ak tuyau bu mag bi nekk ci kër kër sëñ bi pour kër sëñ bi mën a am ndox ñun ñu mën a amaale ndox ndax ñun ñoo bokk même alignement ñun ak sëñ bi mais depuis boobu daal indi nañ mu tuyau bi moonte nañ ko mais ba léegi nii li ñu mujj a wax daal maanaam mooy tuyau bu mag bi moo amul ndox loolu nag ñun daf ñuy jaaxal ca doy na waat trop daal. xaj na daan nañ wut jënd ndox mais comme ni mu méttee ren nii moom wax dëgg yàlla fii ci côté bii fii nii janatu fii nii ni mu méttee nii moom wax dëgg yàlla gëj na ne méttee trop non mosuñu koo dunde nii parce que ñun penc mi fii am na ñaari robinet yu ne ci penc mi ñaari robinet yooyu da nga daan toog ba guddi sax mu am ndox nga root ci balaa bët a set nga root li nga soxla ci ndox ca du coupé wala cinq heures maa bi mu daan am ndox nga mën a root dugal sa mais loogi loolu sax amatuñ ko amul xaaju amul trois heures du matin amul quatre li daan am ak néew amuñu ko instant bii manam dal fi ni mom, lu ñeuk lu ñeuk la sax mo tane won li ñu nekk ni ni instant bi ni ci ñaaku ndox bi mom sax da gëna metti fi mom wax deug ya bu wéso lolu est-ce que ñoom déployé ñu ay citerne xamoo yow da nga gis li rek top ko ngir am ci yaakar giso len fenn ku len mëna walu tamit ci walu ndox. non man de gisaguma ko parce que man dama gis citerne bi rek dama tok ne ci sama buntu kër ma seen citerne bi. traverser bi mu traverser dama ko top man ak sapeur bi ñoo and ba fi makoy ñaan pour am 5 bidon yu ma toggee rer loolu moo tax sax ma ñëw ba fii mais gisuma fi sax koo xamante bi nii kuy yor citerne la kuy wër fii ci quartier bi pour may ñu ndox non non gisuma ko de oto citerne sapeur bi rek laa fi gisagun te dafa ñëwoon ci kër sëñ bi pour indi fi ndox looloo taxoon ma topp ko pour am ci cinq bidon ndox pour mën ci toggu reer. Euh, graphologiquement ni ma ko gisee bien vrai que l'apparence est souvent trompeuse mais j'ai la conviction que li mu promettre euh, dana ko def te yàlla na ko ci yàlla dimbali. Euh, loolu laa koy ñaanal parce que euh, boo koy xool loolu laay liir ci kanamam quoi euh, ku ko xool daal xam xam naa daal ku pragmatique la quoi loolu daal mi am naa ci yaakaar daal yal na leen ci yàlla jàppale quoi. ah xanaa rek ñu gën koo ñaax rek lim ñu dikk mu def ko rek bu ko defee de dina baax parce que ñun ñii dañoo ko fi teg comme ñoo ko fi teg nag dafa war a di wéy ci suñu bëgg-bëgg. ndax ñun ñi ñoo fi tek ñun daal lañu dimbalé ci am ndox ñun jannatu mom bëgg nañu ndox torop magal lu mu neex neex neex jigeen ñu duñ ko yek lu mu naqari naqa tamit duñ ko yek ndax root dañoo roto rot ba son ñaanum ndox ba son ndax man sama place lañ ma woyee nii gis nga sama takay lé ñew di utim ndox amul ndox fi ne duma am jamm fek sama waa amul ndox duma am jamm fu ci melni ni marnan arrondissement euh poulailler mbàkke bari yi nak ay gox la yo xamné jànkonten nañ ay jafe-jafe yu mag a mag a mag ah, donc ci li nga xam ne moom mooy ah, ñàkkum ndox bi ah, file ci Touba ñoom nag askan yi nga xam ne ñoo fay yeewoo am yaakaar di ko dundee nag bu baax a baax jàpp ne nag ñi ñu dénk secteur bi ñu war ko rek taxaw ñu am yaakaar ne dinañ ci indi saafara fileeg màggal geeg ah fan yi nga xam ne moo ciy topp dimbali gan yi rek ba ñu mën a màggal ci jàmm ak salaam. الآت الذي في كل لسان وفي سفر